Euh, yéen mouvement F24 ci lépp li nga xam ni moom mooy li ngeen bëgg ak seen i mbébét mais toog kook moom mii ndeyu mbir gi directement ak euh, peut-être ay ay autorités yu yu yu mu ci yebal pour justement delloosi ci lool pour xam également sa position. Euh, définitive bon xam nga euh, peut-être que ba ñu commencé jàmm ko troisième mandat sax lettre ouverte dañu fa njëkk a bind. ensuite euh, quand même euh, dialogue moom mooy initier dialogue moom mooy bind nit ñi. ne leen kii kii ñooy euh, kii ak kii laa bëgg ñu waxtaan lii lañ bëgg ñu waxtaan donc ñun F24 quand même dafa nekk ni ñu taxawee comme ni nga ko waxee sànq. Mm-hmm. dañoo nekk structure bu mag a mag a mag yaa tey cent quarante ñu ngi ci structure boobu dafa am ay parti politique wax naa leen parti politique ay wujje lañu mm-hmm. dafa am ay organisation société civile am ay personnalité indépendante am ay euh, organisation socio professionnelle ay syndicat ay kii de pêcheurs ay de mécaniciens et cetera et cetera def na euh, groupe boo xam ne li ñu boole mu unité d'action loolu rek moo ñu boole donc mënuñu ñun wax autour euh, au nom de ces de ces gens ñun dañu soxal mooy lii moo ñu boole ñu tënk ko bind ko dañ ci waxtaan waxtaanee lii moo ñu tënk donc on ne peut pas aller au de ça. donc ñun F24 mënuñu sax taxaw di dialogue ak dialogue mooy li ma doon wax sànq ni euh, politique yi ñoo leen di utiliser. finalement non non non non est-ce que yow sa xalaat yow en tant que mm-hmm. Mamadou Mbodj. Mm-hmm. mooy ni man waruma dem waxtaan ak président ci man la ma bëgg. waaye yow sa xalaat en tant que Mamadou Mbodj coordonnateur F24 mooy tu es obligé euh, de de de de nu ñu koy weeti topp politique yi nga xamee ni ñoom benn mbëbët la ñu am peut-être ngeen bokkandoo ko mooy bu mu dem troisième candidature bu mu dem troisième mandat mais. c' est dans le cadre d'un dialogue la ngeen mën a discuter yooyu yaa ngi wax ci wàllu parrainage mais boo leen toogul dialogue yi nag ngeen koy dindee ci wàllu parrainage boobu ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mu ngi ci biir. en fait toppuñu politiciens yi. dañuy waxtaan suñu biir. te lii lañu jàpp parce que ci biir ci biir politiciens yi. Hmm. ci biir F24 y' a au moins trois euh, positions. am na ñu ne il faut pas y aller des gens qui il faut y aller y' a des gens qui sont hésitants donc loolu. xam nga loolu dafa jafe eh, am benn unité unité mhm. ñun unité d'action lañu donc loolu moo tax ñu ñoom am nañ seen liberté parti man dafa am trois points yoo xamante ne dama bëgg ñu taxaw ci benn bi mooy euh, premièrement 2011 yaa ngi wax ni M23 ngeen tegoon. Mhm. Euh, ñu ñëw 2024 élection présidentielle ñu ngi koy waajal ngeen taxawal F24. Euh, xeex bi ngeen doon xeex daanaka 2011 même chose ngeen di xeex 2024 ci intervalle bi lan moo tax taxawoo leen xool. Euh, anticiper pour que 2024 débat bu mel ni bu mu a ñëwaat. Mm. maanaam lu jëm ci wàllum troisième candidature. bon d' abord peut-être que di waaye fàttali rek euh, M23 li ko jur en vérité mooy projet de loi boo xam ne ko defoon. pour teg mm-hmm. ticket présidentiel. Mm. ak élire le président ci benn vingt cinq pour cent. Mm. donc ñu def ko conseil des ministres le war ko voté le 23 donc en une semaine il fallait se préparer et se battre. Hmm. donc loolu mu indi M23 bi ñu bi ñu koy def nag avant le le 22 bi ñu toogee ne lii ci la bokk mais nañ ko def leneen yokk ci yeneen yeneen ak yeneen pour que bu ñu paree ñu kon xeex. Hmm. donc bi ñu paree loolu en vérité dañ am yóbbal M M23 bu paree dañuy def yóbbal def ko joxe Macky Sall ñun pour ñun xeex boobu jeex na affaire troisième mandat jeex na. d' ailleurs bi Macky Sall ñëwee daf ko daf ko jéem a dafa jëm a lijjanti ne bon puisque durée mandat bi moo amoon nekkoon problème. nañ ko réglé dëgg gën a dëgëral euh, limitation de mandat parce que limitation de mandat bi mu ngi ci constitution bi depuis de 2001 Ablaye Wade loolu moo am sax différence entre Ablaye Wade ak euh, Macky Sall parce que mm-hmm. Ablaye Wade euh, constitution bi muy prêter serment bokkul woon limitation de mandat mu ñëw dugal ko ci donc mu leer nañ. Mm-hmm. mu ñëw Macky ñëw donc Macky Sall muy prêter moom prête serment ci caution bu ne limitation de mandat donc bu ñu ñëwee mu consolidé que pour ñun loolu jeex na pour ñun loolu dafa dem policier moo day waar kay. déjà yéen da ngeen di xeex euh, troisième mandat wala troisième candidature ngeen di xeex. Ah, troisième candidature <laughs> léegi troisième xam nga troisième candidature bokkul ak mandat. bu ñu xoolee la justice par exemple ñu ne certaines personnes en tout cas euh, des personnes yoo xamante ne ay ju euh, c'est des judiciaires wax nañ que ne la candidature de Macky peut être que ne juridiquement. c'est quelque chose boo xamante ne peut-être c'est inévitable dans la mesure où justice bi d'accord na ko euh, avec les articles qu'ils ont cités là-dessus maintenant est-ce que xeex bi foofu la nekk wala xeex bi fan la nekk mooy euh, Macky Sall bu tegee troisième candidature am comment faire justement pour politiquement euh, askanu Sénégal taxaw ba ñoom du ñu falaat njiitu Sénégal Macky Sall. xam nga xam nga boo constitution bi ne nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs boo exercer deux mandats consécutifs waratoo bokk. cinq ans bi ñu ci tëgg. non def non cinq ans bi moom mandat mandat la et sur cette question là euh, métaphore euh, id bi c'est très clair Macky Sall moo génnee Macky moo génnee que id euh, ñaari rakk la bu njëkk bi juróom-ñaari kabar la bu ci juróomi kabar la donc mm-hmm. mandat mandat la. Mm-hmm. donc à partir de ce moment là mënatuñu amul lu ñuy laablaame Macky Sall ñu bind ne nul ne peut plus de deux boo exercer deux mandats war a toog présenté wu. boo présenté wu rek lu fi am yaa ko donc amul am c'est-à-dire que droit dafa am ay porox ndol euh, benn benn benn borom xam-xam mag antiquité daan na wax ne les lois c'est comme des toile toiles d'araignée toile d'araignée lu ndaw mouche yeeg yooyu dala koy jàpp waaye lu mag yi da koy trouver donc dafa am porox ndol yoo xam ne boo amee doole am xaalis wala am pouvoir facilement nga jaar ci mais Macky amul le droit déposer troisième mandat c'est-à-dire en droit effectivement mun nga trouver des moyens pour dire que rien ne lui interdit alors mais en fait quand le quand le la constitution dit nul ne peut exercer plus de mandat consécutif boo exercer deux mandats mënatoo def da nga war am droit de déposé. waaw mandat de mandat la. léegi Mamadou ni nekk di di xeex nii faaw kuje gi ànd ci ak ak yéen mais est ce que yéen a ngi mesurer réellement nga xam ne ñoo fa seenee ànd ak yéen parce que pour li ngeen di xeex mu mën a ànd faaw ñu am ñu am taxawaay ci réew bi. ñeent yi. ak kuje gi ñi nga xamante ne décidé nañ pour ànd ak yéen est ce que yéen a ngi mesurer réellement seen poids. bon en fait. Euh, xëy na mënuñ ko mesurer li ñu mën mooy ñun dañu nekk agrégé mhm. cest à que comme ni ma waxee par exemple bi ñu commencé mhm. juróomi juróom benn association ñu continuer di mhm. dem ci wër di dem ci imam yi dem nañ seeti association imam yi seeti syndicat yi donc dañuy dañuy élargir di élargir ba dem ci politiciens yi di élargir tey jii démb rek je am na dizaine de associations yi ñëw eh, eh, di ñëw donc ñun li ñu soxal mooy agrégé force yi na ñëpp ñëw bu ñëpp ñëwee ñu mën a àgg fi ñu jëm parce que bu plus nit ñu bari rek plus ñu am poids boo xam ne dañu créer li ñuy une force dissuasive parce que du xeex bi moo am solo xeex bi lañ bëgg éviter mais pour éviter xeex bi il faut mu benn force dissuasive boo xam ne dafa am ñépp ñoo koy indi nag man am naa peut ñaari xarit parti bi am na 15 parti bi la am na 150 ba la am 1500 bu ñu boolee lépp